mbokku senegaal ginnaaw bu ñu leen nuyoo yéen ñëpp sant yàlla julli ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoo ngi leen di gërëm yéen mbokku taskatu xibaar yi ci teewaay bii ngeen teew fii pour taataan suñuy kàddu jëm ci askan wi mbokku senegaal yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci diaspora